man li ma ci xam ak li ma ci mën a wax mooy lu lu yomb la parce que président Diomaye Diakhar fay euh, peut-être ñi xamutoon ci ñi nga xam ne ne peut-être ci diabolisation wala ci manipulation lañ doon dund ñooñu ñoo doon dugal ci xelu nit ñi ak ci gis-gisu sénégalais yi li nga xam ne ne amutoon peut-être comme li nga wax ay salafiste lañ ay nangam lañ nanguwuñ diine dañoo contre kilifa diine loolu ña nga xam ne ne ñoom ñoo doon xalaat yu ñaaw wala di wax wax yu ñaaw pour diaboliser leen pour boole leen ak àdduna ak boole leen ak Sénégal ñoom ñoo doon wax loolu mais ñun ñi nekkoon ak ñoom te yàgg ak a kiyanteeg ñoom xamoon nañ ne loolu ñuy wax lu lu amul la te lu nekkul la parce que bu dul dara sax man mii di tët di sët si sëñ Babacar si xanaa ku fonk ku fonkul kilifa diine man duma la fonk te duma la jàppale mhm. kon xanaa man mënuma nekk sët ba pare di gis yenn yoo xam ne ne muy am ma ci ànd loolu xam nga xel nanguwu ko. lan nga yëg lan nga yëg mu mel ni que euh, yéen euh, en tant que des disciples am ngeen ndam ci li ngeen doon parce que tey bu demoon neneen yéen dañ leenu dañ leen jam naa ni waa effectivement na li ñu ci gis nag mooy li ñu ci gën a mën a rafetlu sax muy yar gi yar ak teggin gi nga xam ne ni ku ko gis xam ne ni kii kilifa la mais la mu jiite wala la mu doon kilifa gisu ko parce que ci taxawaay da ngay xool peut-être buñ ñëwee. Mhm. ñii mu ngi sëgg seen loxo di leen fóon. di nuyonteeg ñoom ba ñoom ñëpp kenn ku nekk yëkkati kaamil jox ko peut-être lu li waral loolu ñoom ñi ko jox wala ñoom ñi ko def xam nañ li tax loolu peut-être li ñu gis parce que nag am na loo xam ne ne kilifa fa muy gisee ak yow fi ngay gisee du doon benn mais ñun amuñ ci mbetteel parce que xamoon nañ ne ñoo ñu seen dundi loolu la ñoom diine moo tax ñuy dund diine la ñuy jëmmal parce que dëmmal diine muy le président Diomaye Diakhar Faye ak le président Ousmane Sonko diine la ñuy jëmmal mhm. tax ñu ne dañuy jëmmal diine mooy ci doxalin xam nga diine li ko sunu sang bu tedd bi Seydina Mohamed li muy prôné yëpp ak li muy téye diine lislaam bi yëpp muy téere muy loo xam ne ñëpp dañ ci kii melokaanam dafa nekk melokaanu gu sell loolu nag ñu gis ko peut ci ñi ñu jiite muy woyef gi muy dal gi muy taxawaay bi te loolu lañ bëggoon ci kilifa goo xam ne da ñu jiite ci politique nga am melokaan boobu noonu te loolu moo manqué woon mais ñoom gis nañ ne lañ leen doon waxal ñu ñëwee xam nañ ne lañ leen doon waxal amul ñi bon ak ñi nga xam ne dañ doon bëgg yàq ak ñi doon diaboliser ñooñu rek ñoo doon waxee xalaatu noonu ak di doxalee noonu mais ñun xamoon nañ ne ñii li ñuy wax loolu amul te yàlla def na ne ñëpp xam nañ ne wala ñu bëri dañ ne am nañ surprise surprise na mooy ki xamul mbetteel mbetteel mooy ki ki xamul mhm. ki xamul wala ki bëggutoon xam kooku moom mun na am mais ñun ñu nekkoon ak ñoom wala doon nekk xam nga à l'époque euh, ci période campagne bi dañu waxoon que ni ñoom mhm. euh, li tax nanguñu woon dem ci kër kilifa diine muy noo xalif généraux mhm. euh, lii parce que booy xool ki leen di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi ko doon wax ci benn meeting bu mu amaloon foofu la ca Mbàkke que ni mhm. tey la xalif bi moom moo nekkoon di wéetal boromam moo tax sax mënuñu ko woon gis mais le fait que ñoom ñu génnoon prison directement jubali ci campagne bi loolu itam dafa commencé woon di semer doute ci le fait que ñoom lu tax demuñu nuyu ji suñu xalif généraux te ñuy commencer benn activité politique. waa effectivement cest à li ñu ci waxoon ak li ñu ci bëggoon mooy problème bi du dem seeti leen ñaan xanaa fa ngay toll sax mun nga fi toll ñu yónnee la ñaan te moment bi ñu génnee nañ waxante dëgg boobu nag ñu ngi ci moment politique boo xam ne la vraiment xawoon na danse. te boobu ñoom nombre de jour yi nga xam ne amoon nañ ko pour def seen campagne mais barewutoon kon il fallait ñu def accomplir loolu. bi ñu accomplir devoir bi dem sur le terrain après yàlla def ñu fal ñu di jox ñu ndam léegi tamit il fallait tamit sénégal yi dañuy dañ ñoo yónni yàqamti ñu. il fallait tamit ñu teg lépp ba lépp nekk ci yoon ba nga xam ne balaay mission bi di commencé nag ci doxalin bi ñu dem nag seeti suñu kilifa yi ñu dolli leen ñaan dolli ñu kii euh, teg ci euh, teg ci euh, taxawaay boo xam ne ne loolu la diine soxla looloo tax nag moom it mu ne balaa moo génn réew mi dina dem nag seeti kilifa diine ñu ñaanal ñu man segg ne nag li may jàpp ne daal. peut-être ñi seen xol doon bon comme genre ma Madiambal Diagne beeg ñoom Moustapha Diakhaté ñooñu peut-être seen bëgg-bëgg ak seen taxawaay ak seen waxin lañ ca gënoon bëgg mooy loolu wane ne ne rek ñoom lañ doon wax ak lañ doon dundal nit ñi wala lañ doon gëmloo nit ñi loolu amul. tey moom confirmation seen pexe yi ñu doon teral yëpp nërmeelu. non yëpp nërmeelu moo tax gis nga iñaan fonkul muur ah iñaan fonkul muur parce que loolu mooy wane lii rek. lañ bëggoon nag lañ doon wax yëpp tey sénégalais yëpp xam nañ ne ñoom lañ doon wax dara mosu mosuñ ko gëm li am mooy li na fàng kenn du ko jeex mooy gis nañ président jomaa jem fa gone respe gone ya wone yar di moyes wone respect te yar googu mu wone bu dul kilifa diine sax sunu maam euh, sëñ Babacar. Mhm. ak sunu maam euh, kii sëñ Muntaxa sëñ euh, Muntaxa. Mhm. nañ xam ne ne même bu dul côté sëriñ sax mot nañu papa wala yaay. wala mot nañu papa wala maam. Mhm. wala nijaay wala leneen. kon loolu de un même bu dul côté kilifa diine sax dañ leen war a wan yar. won leen teggin kon loolu cër la maanaam Sénégal mooy bindoo noonu ku la mag da koy jox cër waxuma laa koo xam ne ne mot na la papa wala mot na la nijaay wala mot na la maam kooku wax na ma moo tax bi ñu ko gisee muy toroxlu di wane loolu vraiment dañ ci am satisfaction loolu mooy sant yàlla pour moom fañ ko yaree woon ak nañ ko tegle woon soppiwu ci dara parce que am na ñoo xam ne ne nag gis nañ ko na ci même kilifa euh, imam bi keroog mu def geste bu rafet l'imam de la grande mosquée de la grande mosquée di jóg mënut a jóg wala jógam xaw a naqari mu dem may ko loxo est-ce que xam nga ne loolu du lu mu tey. c'est intentionnel c'est ce même imam ki euh, ki moo waxoon na ci ci heure bi daaw kan yi euh, ñi nga xam ni dañuy euh, xeex ci manifestation yi bu ñu ci deewee safara la ñu jëm. waa léegi nag li ka waxoon loolu tey moom lañ may loxo. c'est à nous de c'est de juger. te moom sax mujj na rejoindre projet bi ah. kon jeex na kon ah c'est mooy gis nga si yàgg bawul dara nit bu nekk ci dëgg. bul ci ragal bul ci wéet. mais la communication gestuelle bi nga xam ni tey le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi koy passé mu nekk des message yu am solo yoo xam ni mi ngi koy mi ngi koy véhiculer di di ko jàllale. Mm-hmm. loolu aussi tamit am na solo ci période bi ñu euh, toll nii maanaam. Euh, jëf lu bari. Mm-hmm. wax tuuti. waaw loolu moom loolu lañ soxla nag. parce que dafa mel ni mi euh, mu nekk ci dynamique boobu aussi tamit parce que ñu nit li may wax dañ ko yónni yaa xamti ko na jëf rek xam nga problème bi mooy xam nga man genre jaañ bi nga xam ne ne daa wax ba ñoo mën ñoo fi ndëng ñoo gën a baax ñoo nangam nangam waaw bu ñu demee ba jot ñu jox leen ñu war leen seetaan ñu won ñu won ñun ñu war a wone li nga xam ne la loolu taxoon nit ñi di sonn mais wax dëgg yàlla lu ñu ci war a def mooy def defar loo xam ne ne au moins sénégalais du ñu am rëccu parce que nag nañ waxante dëgg rëccu def rëccu day wees mmh. te am na loo xam ne bu ñu ko rëccoo ñun ñii dañuy am gàcce mmh. tey man mi doon bokk ci bokkoon ci ñi nga xam ne ne sama làmmiñ bi mel ni bu perroquet mm. fu nekk ma nekk fa di si ci plateau yeeg ci euh, terrain beeg ci lépp pour rek jëmmaloon projet bi kon lu luñ ci mën a bëgg ak lu ñu ci mën a am mooy am satisfaction boo xam ne ne satisfaction nag ça ba veut pas dire que ne mm-hmm. fii ak juróomi at lépp lu sénégalais yi bëgg dinañ ko def loolu mënta nekk yàlla mi bind àdduna sax li mu bëgg yëpp munu ko defandoo ci benn fan. il faut ñu am patience mais tey boo xoolee euh, sànq maa ngi wax le président jomaay mm-hmm. euh, tey geste bi mu def ci kanamu imam boobu def ko tey mm-hmm. euh, envers nos xalif généraux pour man ce sont des coups spectaculaires yoo xam ni mm-hmm. tey ñi taxawoon pour jaboliser jël nañ parce que tontu na leen en fait te te waxul sans même piper un mot. waa léegi nag lu ba baaxoon mooy ñi doon wax loolu ñu demaat laaj leen. ñoom ma jambal mii doon wax ay salafis lañ ñii ñoo bëgg a wàccee kii ay ay terroriste lañ léegi dem leen laajaat leen gestes yi ngeen gis ñoom lan lañu ci gis hmm. xam nga ñooy weddi seen bopp ñu jàngat ko ah déet saa di gis nga xam nga boo waxee ña ña nga la nga waxoon ñoom ñooy ñëwaat rek war ne ndax la nga waxoon lan moo ci amoon ak lan moo ci amoon xam nga li ñu mës a wax yëpp hmm. lépp dañ lañ mës a wax yëpp dara nekku ci lañ waxoon yëpp dara nekku ci moo tax soxor baaxul parce que doo xam sax mosuñu xalaat ne ne sax peut-être jomaay dina leen jiite wala Sonko dina leen jiite tey ñu ngi jiite kenn mënu ci dara kum neex kum naqadi parce que loolu la yàlla namm yàlla li mu namm mooy am du li nit ñi bëgg xam nga sénégalais yi tey ñun jàppoon nañ 90 pour cent sénégalais yi neewoon nañ mooy doon président même jomaay jaxaar fay sax ci meetingu euh, Kër Massar bi nee na Sonko mooy sunu plan A et mhm. amuñ beneen plan Sonko mooy doon sunu candidat mhm. yàlla na yéen lii ngeen bëgg mais man li ma bëgg mooy jomaay yaay doon président. l'homme propose jeex na kon ñun suñu bëgg-bëgg ak li yàlla di def ak li yàlla di dogal loolu kenn mënu ci dara. yàlla mooy am mais fi jànka ni euh, la borom a fay fan. waaw waay yéene néeg la borom a ci waaw loolu lañ yéene woon mais nag yàlla nag gis nga lii am nii sax man damay wax ne na président Ousmane Sonko sant yàlla. parce que hmm. nag ah am na loo xam ne yàlla mënu ko maye. Hmm. yàlla am na may yoo xam ne bu la ko mayee. bu yeboo sax nga tiit parce que nag loo xam ne loo bëgg mu am loo wax tey buñ ne euh, te bëri na ñu fi nekk député gannaaw yàlla grâce à Ousmane Sonko. bëri na ñu fi nekk maire gannaaw yàlla grâce à Ousmane Sonko. Mhm. tey même Diomaye Diakhar Faye gannaaw yàlla Ousmane Sonko tax mu nekk faiseur de député maire après un euh, faiseur du président de la République. kon jeex na léegi nag boo ne beñee ñu ne dugub. waaw boo ne mburu <laughs> ñu ne fay. Mhm. cest loo wax rek yàlla barkeel waaw léegi nag yàlla ne na nag tamit bu ma la bëggee jox li nga xam ne ne moo gën a euh, kaw muy président de la république mun na am du gën ci yow challenge yi. waaw mais mais pour le euh, mhm. ci visite bi. parce que mhm. récemment on a on a on a tous on a mhm. entendu quand même des yoo xam ni jug na. Euh, ci la nomination euh, du général Jean Baptiste Tine. nga xam ni ñu ngi doon wax que ni la fait que mu nekk un ministre de l' intérieur. ak nos religieux yi nga xam ni. dafay war dem di toog a ñoom te pourtant binduñu ko fen gis nañu ci délégation bi mu ànd ci respecter. en même temps worma yi nga xam ni euh, tey barab yooyu dañu ko mu nekk dafa mel ni tamit euh, tontuwaale nañu ci beneen côté euh, ñi doon yëkkati kàddu yi ni mel. waa léegi Jean Baptiste luñ ci wax luñ ci doon xalaat pour du munul dem ay Touba ak yooyu. waaw parce que bokkuñu ngëm-ngëm. waa léegi señoor nag Senghor daanoon de seeti sëñ Fall. Mhm. ba sëñ Fall di ko ne seng ci kaw rek. waaw ah, kon jeex na <laughs> tam moom moo ñu jiite woon te ñun ñaata kii lañ quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ. xam nga dañuy am lu ñu wax que ni moom mooy assister ci cérémonie officielle yi. dama ne cérémonie officielle yoo dama ne amut lenn loo xam ne ne jullit dina ko xewle catholique du ñëw taxaw amut amut lu ñu mën a assister dinañ ñëw assister ko sunu jumaa ji ñoom buñ ñëwee lu dul taxaw ca buntu ba bu waree julli ñu bàyyi ñu ñun ñu julli ñoom ñu toj. ñu nit ñëw ba ci église ba toog xaar leen bu ñu génnee ñu ànd ak ñoom comme ñu war a dem loro bi wala nangam loolu lu ñu diine sant la kon ñii dem xalaat leneen wala ñii doon wax leneen loolu ñoom seen gis-gis ak seen kii dafa sorewul mais li ma jàpp ak li ñu gëm mooy Jean Baptiste lu mënti doon li mu gëm ak li muy dundal muy catholique euh, catéchisme bi loolu moom dañ koy doxal à leur façon mais nag li jëm ci côté état amul fenn fu ñu tënk ne kilifa diine bu taxawee fii keneen beneen kilifa waru fa taxaw gis nañ sax ñun nuñ doon saafonte surtout sunu maam Abdou Aziz baax ni mu doon saafonte ak suñu mbokku catholique yi du dëgg ba nga xam ne tey wax ma rek suñu benn mbokku catholique bu mos a wax dara lu ñaaw ci maam Abdou Aziz mhm. amul lu tax parce que dafa doxin bi te ba pare nag yéen it islamu ko chrétien boobu loolu dafa am solo loolu dafa bokk ci luy naatal sunu réew mii dew da ngay dugg ci kër man mii am naa ay maam yoo xam ne ne ay catholique lañu. dialogue islamo-chrétien kon jeex na Sénégal ñëpp la plupart am na ci ñu bëre seen mbokk yi ñii dañoo doon jullit ñay doon catholique ñu nekk ci même kër. Mhm. parce que ku nekk ak sa gëm-gëm ku nekk ak sa doxalin. kon loolu yàqul dara yooyu du yooyu ci man ña ko doon wax ak ña ko doon xalaat loolu ay détails la problème bi du loolu xam nga luy problème. luy problème mooy liñ ko jox. na ko def ni nga xam ne ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp. mooy sécurité am. Mhm. te sécurité moom gis nañ ne. bi muy nekk euh, euh, général. Mhm. ci euh, gendarmerie. Mhm. ci mbiru Adji Sarr bi gis nañ taxawaay bi mu ci am te moo am na moment boo xam ne. Mhm. mais dérive mënoon na ama ah. vingt deux mille vingt boobu. bu amutoon ay nit yoo xam ne ne yàlla may na leen ma muy comme ni mu doxalee noonu kon heure bi Sénégal kenn waxatu ko kon heure bi mais y a des gens sax même que ni sa sa retraite a été anticipée dem na retraite effectivement voilà demam jotul waa léegi ñëwaatul waaw yàlla fay na ko ku liggéeyal sunu borom te rek mu te yàlla rek tax yàlla may fay la boppam. d'accord moo ne maa kaani li laay ku ma nekkal ma nekkal ko. Mhm. lam doon def daf ko dundoon gëmoon ko. man kaana laaw kaana laaw laaw ah. <laughs> léegi oustaz laa de. Ah, déedéet <laughs> léegi nag moom ni mu doon dundalee lu mu gëm. Mhm. ak ci doxalin ñu yóbbu ko retraite anticipée yàlla indiwaat ko léegi amaan na plus retraite lii bu moom retraite plus la. Mhm. parce que ñëw nañ sax mosu doon ministre sax léegi ñu jox ko ministre de l'intérieur. waaw yàlla mën a fayu. <laughs> xam nañ ni ay militant dëgg la am. maa ngi def silence rajo mais trop c'est trop aussi. salaamaaleykum wa rahmatulah.